loo xam ne lu yomb lay doon ndax mbirum viol ci Sénégal moo garaaw genn xeetu garaaw goo xam ne daan yu nekk mën na see fekk Ousmane Sonko te na leen leer ne bu ñu ko tegee loxo ab mandat dépôt la ñu koy yan te daan bu rëy rëy mën nañu ko ko daan te Ousmane Sonko ana nan lay def ba génn ci combat bi du nekk loo xam ne lu yomb lay doon te xale bu jigéen bi ñuy wax ne yegg na ci kawam nee nañu xale bu jigéen boobee mineur la ndax kayitu juddu yi nga xam ne si la defalee carte d'identité kayitu juddu woowee du kayitu juddu bu baax yéen a kaay gii da la témoin nee na en tout cas li am ba desal njiitul passif ak ñi nga xam ne ñoo koy jàpp jàppale ni ki démb wane nañu seen bopp résistance bi defante bi jàmmarloo bi ñi ànd ak Ousmane Sonko commencé nañ ko ni ki démb ndakaaru njaay ni ki démb tàngoon na jër yéen a kaay gi nee na Ousmane Sonko ci boppam moo woote ab résistance ñi nga xam ne ñooy ay militant daal di koy wuy si moo taxit Dakar démb boyal nañ ko fenn fu nekk tàkk-tàkk yaa ngi ko doon séen ay pëne la ñu taal ay oto ñu taal ko ay magasin ñu daal di koy taal daal di koy caxte-caxte ay station service ñu daal di koy yàqate yéen a kaay gi nee na tout cas démb taroon na bi nga doon def ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi tàngoon na jër ni ki démb ci ndakaaru yéen kaay gi nee na li ci gën a doy waaral intérêt français yi la gars yi gënoon a sible la ñu gënoon a teg bët lu ci mel ni Auchan ak Total ak Orange yéen kaay gi di Walf Fadjri ak réew mi quotidien nee na ndakaaru njaay ni ki démb bëccëg bi tàngoon na jër bëccëg bi yàgg na bëccëg bi metti na bëri na ay ndaw yoo xam ne am nañu si ay gaañu-gaañu bëri na si ñoom ñoo xam ne teg nañu leen loxo yéen kaay gi di Dakar Times nee na Ousmane Sonko commencé na li nga xam ne maanaam mooy jàmmaarloo bi waaye nag ma ngi gën a andil boppam ay jafe ndax am na yeneen tuuma yoo xam ne mën nañu ko gàll ci ak ndoddama yéen kaay gii di li quotidien nee na manifestation yi ni ki démb bari woon na loola jàppante yu taratar ni ki démb am na ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru diggante takk der yi ak étudiants yi nga xam ne ñoo jàppale Ousmane Sonko yéen kaay gii di nee na kër Mahmoud Saleh gi nga xam ne moo nekk ca wetu kër usmaan Sonko ni ki démb dañu koo caxte-caxte am na ñu doon jàppale njiitul Pastef ca diwaanu Louga kër Mamour Diallo dañu koo tàll te yaayu Mamour Diallo bi nga xam ne ay atam toll ak fukk ma nga woon ca biir kër dëgg yàllaa baax yéen a kaay gii de la témoin nee Sonko ñoom nag bind nañu commandant bu section de recherche ngir nag mu respecté li nga xam ne mooy loi bi jaar ci assemblée nationale ñu dindi malaanum kiiraay yi Sonko su dee assemblée nationale danañu ko nangoo yéen a kaay gii de lu jëm ci dindi malaanu kiiraay yi Sonko mbir mi nag daal dinañu koy commencé procureur nag bu dee saisir na ñi nga xam ne ñooy ko nangoo am nañ lu gën a gàtt lu toll si a kaay gii source a ak les échos ñoom nee nañu xibaar yi nga xam ne jot nañu ko mooy njiitul Pastef ba léegi ni daal amul benn yoon boo xam ne kilifa yi saisir nañ assemblée nationale ngir ñu dindi malaanu kiraayam yéen a kaay gi di source a nee ñoom li ñu gis daal mooy fekk Ousmane Sonko këram jàpp ko yóbbu yéen a kaay gi di Vox Populi nee na démb bëri na ñoo xamante ni teg nañu leen loxo ñu doon def ay manifestation yéen a kaay gi nee na lu toll ci ñeen fukk ak juróom teg nañu leen loxo Le Quotidien nee na li nga xam ne moom la ñu toppee Ousmane Sonko nar naa garaaw ndax appel à l'insurrection trouble à l'ordre public Babacar yéen a kaay gi de njiitul Pastef si boppam moom moo tooñ boppam ndax ana nan lay tëddee bu guddi jot mu ne dafay dem ci ay salle massage loolee ci boppam xel moo ko munta nangu te kinésithérapie yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi ana lan lay jariñ yéen a kaay gi di direct news nee na Ousmane Sonko ci boppam moom xamoon na ne gars yi ñoo ngi koy rëbb te nag lu ne la ko gars yi mën a tuumaal moom ci boppam moo waroon a def ndànk moo waroon a def doucement erreur bu rëy la Ousmane Sonko def bi mu demee nag ba futteeku jël yaramam woowee jox ko xale bu jigéen boo xam ne ñaar fukki at Walfadjri nee na doxin bi nga xam ne moom la Macky di doxee ñoo ngi jëm nag ci démocratie boo xam ne du am ab opposition yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na mer mi nga xam ne militant yi Ousmane Sonko yi mer nañu ko moo tax waa Dakar dem dikk ñoom nee nañu dakkal nañ ci gox yu baree lu soxal wàllum kaar yi nga xam ne ñoo fa doon def maanaam bus yi yéen a kaay gi di libération nee na ñiy jàppale njiitul Pastef démb ca diwaanu Paris la France doon nañu fa amal di Vox Populi nee na manifestation gi waa Casamance si dugal seen loxo na ab policier démb bu aw xeer lañu ko dóor ci bopp mu daal di tëdd yéen a kaay gi nee na bëri na ci ñu am ay gaañu-gaañu yéen a kaay gi de Les Échos ak bi nga xam ne jëm na ci wàllum viol ak menace de mort nga xam ne ñoo ngi koy tuumaal Ousmane Sonko te jébbaloon enquête bi waa gendarmerie section de recherche pare nañ ca enquête ba jébbal nañ ko Serigne Bassirou Gueye yéen a kaay gi di enquête nee na Serigne Bassirou Gueye procureur dina wax nag ci mi léegi tey ngeen dégg Serigne Bassirou Gueye léegi tey mu wax yéen a kaay na taax mi nga xam ne moom la ñu doon tabax sa ba te taax moomee daanu ba am juróomi nit ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan amul benn autorisation de construction boo xam ne entrepreneur ba wane na ko maanaam entrepreneur ba nga xam ne moo yoroon taax moomee doon ko tabax amul benn papier benn papier boo xam ne moo koy may mu tabax amutoon yéenekaay gi nee na ki nga xam ne nag mooy njiit la kilifa 3MD énergie déglu nañu ko waaye nag ba ñu ko dégloo dañu ko bàyyi mu ñibbi tranquillement journal bi de Libération nee na loolee doy na waar yow am taax ana nan la mën a daanoo ba juróomi nit ñàkk ci seen ba bakkan te jamono ji teguñu loxo kenn waxuñu kan moo def li nga xam ne mooy njombe gi